actualité politique bi honorable maa ngi lay waat encore une fois di la dalal ci Sénégal 7 waaw ah, Birame maa ngi lay fay di nuyu ñuy seetaan yëpp ci émission bu am solo gi muy waa Sénégal 7 waa bitim réew diaspora bi ñëpp ak ñi nga xam ñoo ne si mi. Sénégal 7 muy seen boo ci réew mi ci ni muy doxee. ci mbirum communication vraiment mooy ay nit ñu xarañ yoo xamante ñoo fa nekk di liggéey pour intérêt Sénégal. Euh, à tout moment ñu woo ma si kër gi damay am mbégte ak cawarte rawatina yow di rafetlu sa liggéey baax a baax. di nuyu waa Touba gi nga xam fa laa jógee di nuyu képp koo xamante yaa ngi ci biir réew mi ak bitim réew. alors orientation budgétaire bi ñu ko annulé ñu bëri ñu ko doon xaarandi à l' assemblée nationale defe naa samedi la woon yem ak le juin su ma juumalee ginnaaw bi gis nañ li ci xew muy annulation boo xam ne daanaka am na ci cacophonie bu doy waar yaa ngi fa woon en tant que député ndax xaaroon nga ñu annuler débat d' budgétaire sukkandiku ci li nga xamante ne moom mooy la position du premier ministre Ousmane Sonko par rapport ak déclaration de politique générale bi mu waroon def ci assemblée nationale te ba ko. dafa jotewul dara ak li nga xam mooy déclaration générale parce que loolu loi de finance la dafa nekk ci constitution bi nekk ci li nga xamante ne mooy loi organique ñu ne loi de finance mi ngi tàmbale bërëb sàngam ba jeex bërëb sàngam tey boo xoolee tey loi de finance bi ci débat orientation bi si la waroon a jeex muy le vingt neuf maximum le trente ndax le trente si la assemblée nationale war a tëj te débat bi wutoon a passé li nga xamante ne mooy le trente boobu noonu muy DUB bi bi nga xamante ni programme nañ ko moo jiitu sax li nga xamante ni mooy élection présidentielle bi. ñu wate ko ñun ñëpp ba ñuy wate loi bi boobu nguur gi fi nekkoon moo fi nekk ñu ñëpp ñu wate woon loi bi pour que ñoom ñu war a doxal. monsieur Macky Sall bu fekkente ñëw nañu ba nga xamante ni si cëppaandaw gi la ñu am ministre des bu bees muy Cheikh Diba bi nga xamante ni moo nekkoon directeur de programmation budget tëgg li nga xam mooy budget Sénégal. 2022 2023 ba 2024 bi nii te ñu dénk ko léegi nga xam mooy si bopp bi pour muy doxal. man jàpp naa ne bu ñëwee assemblée nationale si acte républicain ñu def loo xam ne day méng du méngoo ak li nga xamante ne mooy suñu loi ak suñu xamante suñu ay règlement mm-hmm. loolu violation la des flagrants délits. ñenn ñenn ñoo waa Benno Bokk Yaakaar. Mm-hmm. parce que li ñu def teguñu ko ci yoon. parce que assemblée nationale bureau bi sañ-sañ bi am mooy délibération mooy bu fekkente ni tey. war na defe dara dafay wax ni léegi lii ma jàpp nañu dem délibération mais loolu lépp dara amu si ñu sukkandiku si annulation boo xam ni boo xoolee directeur MEWA dafa santaane gouvernement bu nekk mu def li nga xam mooy be mooy dévariantation bi si ensemble national parce que loolu bokk na si transparence mm-hmm. ndax bu fekkee da nga am tey ñu lay jàppale ci financement sa réew mën a dox war nga am tey jii ñoo xamante ni bu toll fenn fii si ngay wax ak ñoom wax ak député yaa ñoo représenté peuple bi xaalis bi nga xam moom war a jëmee si ñetti at fan nga ko orienté bu ko defee nag débat député yi débat ko ñu wax ne xaalis bi war nañ koo jëmee fii buñ sañoo ñu wàññi fii yokk fii lii mooy priorité gouvernement bi génn li nga xamante mooy ay procès mhm. pour que ñu wax te boobu boo xoolee trois cent quelques minutes yi ministre bi nga xamante ne moo toogal gouvernement bi trente cinq minutes si am daanaka deux cent quelques minutes yëpp député yi ñoo ko moom tey ñu xañ député yi kàddu googu nga xam moom la waroon wax pour askan kon loolu damaa jàpp ne mhm. ñàkk bëgg sa mhm. tax ñu def li ñu def alors justification def lii di déclaration de politique générale am ci assemblée nationale ci veille bi gis nañu Ousmane Sonko def na poste tontu kii di Guy Marius Sagna moom tamit nekk député <coughs> ci bokk ci quatorzième législature bi euh, jàpp ne rek intérieur bi dafa am euh, lu ci jaxasoo loo xam ne war nañ ko leeral euh, waa Benno Bokk Yaakaar yooyu nga wax dañu bokk ci le groupe parlementaire majoritaire actuellement jàpp ne Ousmane Sonko respecté wu li nga xamante ne moom mooy pencum ndaw justement pour dàq le débat d'orientation a xam nga nee la mbirum loi de finance jotewul ak li nga xamante ni moo indi li nga xamante ni sequt ak moom dara moo tax ma ne sabotage la c'est acte de sabotage comme ni ñu ko doon defee bi ñu fi nekk yor nguur gi loolu la continuer bëgguñu gouvernement bi fi nekk bu bees bi doxal sax soo ko ñu jéem xool loo xam mooy bloqué loolu moo na si premier blocage pour que ñu bañ a wax li nga xam ne mooy orientation orienté pour askan mën a xam fi ñu pour que Ousmane Sonko loolu mu def maanaam communication engagé wul Assemblée nationale. parce que nekkul loo xamante ni dafa nekk ci va administration. bu fekkoon dafa bind assemblée nationale ne leen du ñëw assemblée tant que defu leen lii ak lii muy document administration mu yónnee ko assemblée su boobaa ñun mën nañ si sukkandiku pour wax mais bu fekkente ni tey benn député moom moo ko bind mu tontu député boobu noonu wax la mu war a wax te la mu wax aussi dëgg la parce que kenn mënul taxaw ci Sénégal wala nga nekk député koo man di doon nga ni li Ousmane Sonko wax du dëgg ci loo xamante ne règlement international bi jaarul yoon ñun xam na loolu moo tax sax daan si agsi moo tax ma def proposition pour soppi li nga xam jarul woon yoon ñu jaar la ko woon parce que comme ñoom dañoo ñëw wane jub jubal jubanti bu fekkente ni ñëw nañ assemblée si ci loo xamante nii joyante gu war a am te amul dañuy mel ni kon lan doon wax mi ngi wut ak li am mm-hmm. kooku argument yi mu teg yu wér la parce que amul benn yoon boo xamante ni euh, règlement international mm-hmm. wala constitution bi wala constitution bi maanaam jox na ko maanaam délai ni da ko war a def xam nga falsification règlement international man mën naa jàpp ni du false parce que règlement bi baax na mais da si am loo xam ne dafa waroon a dugg ci règlement bi muy loi deux mille deux mille deux vingt quinze mai deux mille deux loolu moo nekkoon loi organique de loi règlement international sport mhm. yàlla dogal na bi ñu koy def deux mille dix neuf mu am loo xam ne dañ ko see dindi bi ñu koy indiwaat deux mille vingt et un boolewulaatuñ ko si woon mhm. loolu mooy li am bu fekkente ne boolewuñ ko si te article yi nga xam ne moom mooy wax lépp lu jëm ci mbirum diggante assemblée nationale ak euh, premier ministre mooy exécutif bi. nekku ci règlement bi. yow léegi bu ñëwee léegi ci régal ci assemblée nationale ci ban anam ngay sukkandiku pour que ñoom nga man a liggéey ak ñoom ndax dafa am leen lu nekk luy lié administration bi muy administration bi euh, ak euh, exécutif bi législatif bi dafa am lu leen di lié li leen di lié nag si mbind la nekk nekkul ci ay wax mhm. te loolu nekkul ci règle mais boo jëlee constitution bi article cinquante cinq bi mhm. wax na ko ne obligation la pour que nga def ko waaw mu ñëw def ko mais obligation boobu noonu waxu ko délai aussi parce que boo xoolee ñi ngi fi jaar premier ministre yëpp respecté wuñ délai bi ku si euh, ku dul Ba parce que te bi mu ñëw def si euh, ko mais boo xoolee Macky Sall mi nga xam mooy ndey mbili nekk nii sax bi ko Ablaye Wade nommé defu ko woon mm-hmm. maanaam respecté bi te euh, ngi doon wax délai boobu noonu doon ko war respecté te respecté ko ndax def na six mois doo ko ñëw def ko mm-hmm. ki nga xamante ne mooy Abdoul Mbaye respecté délai bi Mouhamadou Abdoulaye Dione bi ñu ko nommé respecté délai bi kon jàpp naa ne yooyu ay waxi caaxaan la mm-hmm. gis nga fi réew mi toll dañoo soxlawul politique politicien dañoo soxla ay nit yoo xamante ni dañuy jóg pour di wax pour yàlla tax ak askan wi pour défendre réew mi foofu lañ toll mais fekkente ne yow da nga ñàkk par bëgg a ñeenki di def loo xamante ni daf lay wér day tax nit ñi gën la jéppi loolu tamit pour man amul sens. ci ci poste Ousmane bi jàpp na ne à chaque fois su fekkee réglé nañ li nga xamante ne moom mooy euh, règlement intérieur bu assemblée nationale mën na ñëw taxaw jàkkaarloog yéen tenir lii di déclaration de politique générale defe naa ci loolu nga sukkandiku pour dem dugal ab proposition de loi à l' nationale nga bokk ci groupe parlementaire liberté changement et démocratie gis nañ également ni ki démb su ma juumale encore d' autres députés ñu faree ci groupe parlementaire boobu ñoo xam ne euh, dugal nañ ñoom tamit proposition de loi ku ci quelques jours après ñu ñëw tegaat pas bu mel noonu. est-ce que ça veut dire que communication laaj bu am solo nga laaj. communication amul seen parce que boo xoolee règlement intérieur Assemblée nationale buy wax dafay wax député individuel dañuy député bu nekk am nga seen sañu jël initiative parlementaire. muy proposition de loi muy lu mën doon. boo xoolee bi may annoncé ni dinaa déposer proposition de loi pour que modifier li nga xam mooy règlement intérieur Assemblée nationale pour li nga xamante moom la si dindi woon ñu dugalaat ko. Mm-hmm. maa ngi ko def samedi. Mm-hmm. bi nga xamante ni waa Benno Bokk Yaakaar wax na ne ministre bi duñ ko recevoir lu def li nga xam mooy DOB bi. Mhm. bi ma jëlee kàddu naqarlu ko pare ñu ñuy kat comme que ñoom wax nañ ni bokk na si kàddu Ousmane sonk yooyu mu wax man dinaa sukkandiku ci règlement international article 60. Mhm. déposé li nga xamante ni mooy euh, proposition de loi. Mhm. le premier laa ko déposé à 10 h cinq pour ñu mun a. Euh, réglementé réglementé mm-hmm. li nga xam moom lañ dindi woon instauré waat ko delloowaat ko ci li nga xam mooy règlement bi mm-hmm. parce que loi bi 2000 nee naa la lippi 2002 la moo nekkoon loi bi 2019 ñu dindi ko 2021 bi loi bi ñëwaat indaale ko mm-hmm. loolu moo may bi ma xëyee lundi ma dem déposé ko am décharge li nga xamante ni mooy assemblée nationale moo nekk moo nekk noonu secrétaire général moo ko décharge ak li nga xam mooy bureau du courrier assemblée nationale ñu def ko procédure urgence pour mu dem ci kaw ma am numéro mention bi ma ci noppee yónnee naa ko président Lamine Thiam mi nga xam mooy cent pour cent groupe parlementaire yónnee naa ko Ayib Daffé mi nga xam mooy président groupe parlementaire Yewwi Askan Wi yónnee naa ko Abdou Mbow mi président groupe parlementaire yi Benno Bokk Yaakaar yónnee naa ko Aba Mbaye mi nga xamante ne maanaam mooy représentant taxaw taxaw waay ñii yónnee naa leen loi bi mais mais est-ce que sa président groupe parlementaire réagir na léegi nag bi ma ko yónnee Lamine Thiam moom la mu waroon a def daf ko deful mooy lan ci li ma ko yónnee. ba pare informer group bi mais loolu amul. bu fekkente ne tey bi ma ko defee ñëpp xam na ni ku nekk Sénégal ku nekk bitim réew xam nga ni Cheikh Abdou Bara Dolly doomu daara. bi mu doon. lu kenn deful ci assemblée nationale te mënoon koo def depuis ñaari at moo ko njëkk def mooy jël initiative pour ñu delloo si règlement intérieur assemblée nationale loolu ñëpp si war ñëpp ko apprécier mam ñu bokkut ak man sax coalition doon ko apprécier rafetlu ko. Hmm. bu fekkente ni toog nañ ba tey démb. muy le 3. ma dégg ne am na beneen député bokk ci li nga xam mooy groupe parlementaire bi nga xam dafa di bokk PDS. ni moom dafa déposé comme li ma déposé. loolu yaakaar naa yëf caaxaan la. mais comment est-on arrivé là la parce que loolu moo lay wan ne la ñoom liggéeyuñ seen liggéey bi ñu war a liggéey. parce que tey mënuloo ni yow da nekk député boo xamante ni bon parti bi nga nekk c'est parti démocratie sénégalaise ku ne xam expérience am. Mm-hmm. yow jëluloo benn initiative nit koo xamante ni xëy na. doomu daar la bokk yow coalition nga war ko maanaam jàppale ngir initiative doomu daar yi muy mane mhm. yow nga jàpp ne yow incluté nga boo xamante ni moom li mu def si ngay sukkandiku pour def la mu def parce que jàpp ne xëy na mhm. voilà yow yaa yore parti bi gën a mag parti parce que man parti laa yore moo ñu mu yore parti parce que coalition la mhm. mais coalition bi boo xoolee depuis euh, ñoom ñuy jàppale Macky Sall pour ñu yokk mandaam dañoo réeroo si loolu xëy na loolu lañ topp ba tey Euh, ba bu ma defee benn initiative boo xam ne mi la ñëw pour saboter ko. a doon pour man sabotage laa ko jàppee yooyu nga déposé à proposition. de waaw léegi nag loolu mooy assemblée nationale moom mooy àtte. parce que tey jii def nañ si réunion groupe bi. Mhm. suba aussi le trois présidents groupe dana ndaje parce que groupe yi. ginnaaw bi nga xamante ne naa sama proposition de loi. Mhm. initiative boo xamante man maa. interpeller société civile pour ñu jóg dugal seen loxo société civile liggéey si liggéey ba am solo mhm. ba groupe yi daje woon nan muy ñetti président groupe yi mhm. kenn ku nekk wax la nga wax ñun ni den delluwaat ci groupe yi kenn ku nekk day sa waa groupe waxtaan ak ñoom ñu gën a xoolaat la sa group wax mhm. nga indi ko bi ñëwee tey suñu groupe ñun fekk na dèjà ñun def naa proposé loi wax nan ko keneen def na proposé loi léegi ñaari proposé loi am na léegi après bu subaa ñoom bu ñuy rendre compte li nga xamante ne mooy yenn groupe yi danañ wax li nga xamante ne mooy li am. Mhm. mais su boobaa assemblée nationale. proposition bu amee dafay am numéro kenn ku nekk da ngay am ku njëkk a déposé. Mhm. ki njëkk a déposé kooku la ñuy càmbar maanaam li nga xamante ne mooy proposition mais xam nga li ci ñaaw rek mooy. Mhm. koo xam yéen a bokk coalition. mu mën a benn action boo xam action républicaine la. nga ñëw pour peut-être pour sabotage. wala xëy na bëggoon nga maanaam moom bi Macky Sall di yokk mandaam nga te àndu yow. yow nga ànd ak Benno Bokk Yaakaar pour yokk Macky Sall mandat Macky Sall man d'accordu ci ñu jëlal ma si maire wala yu demee noonu loolu man ñoom laa engagé parce que man bu askan wi soxlaa askan laay féetal. Mhm. loolu wax naa leen ko tey nee naa leen lii man lii ngeen def nii du lu rafet. ci solidarité mais lu ñu doon waxtaanee. pour que jéem a réglage li nga xamal mooy règlement intérieur bi. le premier ministre mën a li nga xam mooy règlement intérieur ensemble sal euh, d'or parce que mun ñu ko mun ñu premier ministre mënut ñëw tant que defuñu lii ba pare